y a beaucoup de gens qui pensent que da nga am euh, un problème personnel euh, envers Ousmane Sonko parce que dañuy gis tout le temps dans tes interventions euh, dans tes émissions da ngay tirer beaucoup ci moom lan la da ngay analyser objectivement wala yow sa xalaat ngay wax wala yow personnellement da nga am un problème avec le monsieur. <laughs> télé dafa garaaw su nekkoon si seen YouTube ma tontu lu garaaw xam nga lu lu lu lu ma la bëgg tontu ba nu ma la ko tontu. parce que non mets-toi à l'aise xam nga. Mhm. benn problème la ñu am mooy bu tayee mu wax lii bu subaa mu wax leneen. maanaam du wax dëgg. problème boobu la ñu am maag moom te problème bi du jeex xam nga lu tax. Mhm. parce que pareewul pour wax dëgg lii mooy sama problème ak waa ji. lan la wax loo xamante ni da nga jàpp ne du dëgg. mais Aïcha Aïcha tamit li may laaj xam nga ko. ay Aïcha ñu commencé da nga bëgg ñu demaat ci commencement ba kooku moo ñu waxoon ne saa waay pour Karim Wade rek kaawu Karim Wade bu ko Karim woowee téléphone sax du ko wuyu parce que bokkul ak moom idéologie nitu système la li mu yàq ci dëkk bi moom Karim ñoo coalisé ci jomaay coalition bi dem uti présidentielle bi benn benn boobu ak noonu mën naa laa wax dans l'affaire aji saa hmm. yow xam nga clinique bi nekk fii boori kër Macky Sall hmm. clinique boobu bleu blanc un intellectuel mm. hiérarchie A mm. génnee ENA inspecteur impôt et domaine mu ne dafa juwaatle waxtuma bind bi clinique bi de ak français beeg ñaari langue yi parce que Sweet Beauté la fii langue française la mu ne dafa juwaatle bleu blanc ak miir bu ñu wis rouge tableau bu ñu bind Sweet de dessiné ci ay jigéen loolu la juwaatle mu ne amul benn feebar ci àdduna benn feebar nag en tout cas bu ma yëg waaw moo toogaat nañu moom ba mu nekkee xale ba léegi dafa amoon ay feebar yu sew ndigg loo xam ne dañ ko doon diwal yeewu jaar fii meer bu fi ñimee yeew ba ngay jàpp bay jël gérés gi di ko diwal doomam dafay am mais loolu lépp sénégalais yi dégg ko xam ko xam ne lu dëgg les 94 milliards avec Mamour Diallo France daal den noonu la nar a niilee ci indi benn preuve li mu wax Mame Mbaye Niang des accusations gratuites sans preuve ni rien du tout nga ne bu ñu ñëwee dañ naan recel des documents énormément de contre-vérité dans tout ce qu'il dit damay sànni PSE bi ci poubelle bi du ma mës a wax ak banque mondiale wala FMI on est où là eurobond bi récemment mm-hmm. Tony Blair l'ancien premier ministre anglais bi ñu recevoir fan yi lu mu ko fi waxul bi ko fi Macky Sall yi amul wax ne sax voilà moom moo bokk na si ñuy complot contre l'Afrique pour destituer wala yenn pays comme Irak Saddam Hussein lu ne mu wax ko. kon yow daal problème boobu nga am ak moom. mais problème boobu laa am mooy li ñuy wax chaque jour boo demee ba ci gin ba ci biir saytu ko ci ginnaaw dëgg la nekk te nee naa la du ñu jubóo parce que pareegul pour ba ko. ok. Euh, mais lu mat a leeral bés bu démissionné woon bàyyi lii ñu bokk ñun ñëpp dootuma ko tudd pour wane la amuñu problème personnel ba mu nekkee impôt da ngaa dégg ma tudd. mosuma ko tudd bi mu ñëwee dans les affaires de la cité nekk député. dans la politique ci li nga xam ne moom moo soxal ñëpp ci laa commencé di wax ñoom bu ci jën rek ma koy ba bu bàyyee woon tey dootoo dootoo ko tuddati. ban intérêt laa am ci moom.